أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci ñaar fukkeelu dars ak ñaar ci ay bunt ba tey rek ñu toll ci ma jaa am baad hadihi l umma yacbudu l awsaan yonente alayhi salaatu wasalaam dañul di misaal xeet wi ne balaa àddina bi jeex xeet wi danañ delluwaat di jaamu xërëm bàyyi jaamu yàlla di jaamu ay xërëm tey sunu dars mooy xadisu abi said alxudri radiallahu anhu wa ardah mu ne anna rasul allahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam qaal latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa alqudzati bilqudza hatta daxalu xujra dabbin la daxaltumuhu qaalu ya rasul allah alyahud wannasara qaala faman axrajahu wa haza siyaq muslim jëlee nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nettali nu ne li mu wax ne xeet wi danañ delluwaat di jaamu ay xërëm nekk jullit ba pare di jaamu xërëm yenent bi ne dangeen topp yoonu gaayu njëkk ya la tattabi'unna tariqahum fi kulli ma faalu yéen a ngi nii ay jullit ngeen waaye da ngeen topp ñeneen ñi di leen toppandoo di leen toppandoo ba ñooñu lépp luñ defoon yéen ngeen def ko yaakaar naa tey toll lii wane na ne yonent bi dëgg dëgg dëgg dëgg yonent la yàlla ko yónni mbooleem yeneen xeet yi defoon waxuma la sax ci wàllu bokkaale waaye ci wàllu àdduna ñun def nañ lépp lépp lañ def mu ne watu sabbihuhum fi zalika kama tashabbaha quddatu sahmi al quddatu al uxra mu ne du ngeen yem ci toppandoo yeneen xeet yi waaye di ngeen di dem ba nuroog ñoom sax ci ni fet xam ngeen fet fet mooy la xam ngeen flèche flèche gis ngeen flèche yi yëpp nuroo wala am na yu nuroo ñooy tolloo guddaay ñooy bokk lu nekk ci bopp ñooy bokk lu nekk ci génn gi yëpp ay nuroo ñooy tolloo guddaay ak gàttaay wala yëpp ni yonent bi nee na noonu flèche yi nuroo wi ci toppandoo buñ toppandoo bu njëkk bi ba yëpp nuroo noon ngeen di toppandoo ak yahud yi ak nasaraan yi ba lépp lépp lépp lu ñu def ngeen def ko da ngeen dem ba niroog ñoom mu ne du ngeen di yëm ci loolu da ngeen leen di toppandoo di leen toppandoo ba ñooñu law daxalu juxra dabbin la daxaltumu ñooñ bu ñu duggoon ci ay paxi mbëtt sax xam ngeen mbëtt yéen di ngeen dugg ci paxu mbëtt maanaam tey ci sunu wàllu diine ak sunu wàllu àdduna sunu wàllu nekkin lan ngeen gis lu jullit yi toppandoowul yahuud yeeg nasaraan yeeg mushrikuune yi lan ngeen gis sunu wàllu ngénte yi jullit ñi bàyyi nañ sunna yonente bi di toppandoo yahuud yeeg nasaraan yi mariage dëj xataa dëj ngay gis nit ku dee au lieu ñu suul ko ci sunna yonent bi ñu suul ko nu ñuy suulee ab nasaraan suñu paree armeel bi ñu def ko nu ñuy def armeelu nasaraan ah ci sunu lépp ba bal sax yenn saa yi ñu ne la si mooy tey tubaab nga de së tët tët nga ne macha allah moo gën ñu ne la yow tey jullit nga ak a néew man de mosuma dégg ñu ne ah tey de jullit nga mos gi néew na lu ma koy dégg de te bëriwul sax nag est ce que am na sax ah luñ naan la së tubaab nga moo ëpp téeméer yoon luñ naan la yow jullit nga ndax toppandoo toppandoo leen ci wàllu lekk toppandoo leen ci naan toppandoo leen ci col ci lépp lan leen toppandoo tey sax fii nu toll nii ku toppandoowul yahud yeeg nasaraan yi yow boo ko booy sol sa yére yi sax yére jullit yi non mais yow yow looy papaalu nii yow booy nga amagoo sax ñetti at di di di nii xool yëpp paa yi ngay sol dañ la dañ la la yow paa nga wala yow bokkoo wala wala bu fekkente ne ab jullit bu jigéen la bu ne naa sol nu sama diine wax lu ñu koy wax yow de doo gaaw am jëkkër di nga fi yàgg de yow parce que yow lii ngay def nii yow da ngay gaaf lu bon mais bu fekkee ne xale bu jigéen la buy sol yu bon tey rek wallahi alazim tey yàlla moo ma seet dama demoon inspection bu géejawaay sunu xale yi jàng di toppatoo seen kayit yi bi may egg ci bunt bi maa ngi fekk ñaari xale yu góor ñu ngi taxaw di tooñ benn xale bu jigéen ndax xale bu jigéen bi lu bon lu mu sol au lieu ñu ne ko lii dafa bon naan ko waaye jaajëf ay yow booy dem marché da ngay gaañ nit ñi waaye bul di demee nii waay wala di ko di ko nga gis moom tamit muy muy direeku di gis boppam te lu mu sol dara baaxu ci waaye kon yonent bi alayhi salaatu salaam lii day wane ne dëgg dëgg dëgg yàlla moo ko yónni mu nekk septième siècle muy wax lu nekk vingt et unième siècle soo ko doon natt ñaata la diir bi diggante bi yonent bi toog septième siècle di gis lu lu jullit yi nar a def mu naan leen la tattabi'unna laam bi laamul qasam la yéen ñi jàng arab yonent bi dafa waat mu ne giñ naa ci màggaayu borom bi waaye feewu baat bi nuun bi nuunu tawkiid la def ko feddali dëgëral ko mu ne da ngeen topp saa yu déggee sunna mooy yoon da ngeen topp yoon yoonu ñan mu ne man kaana qablakum ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon di ngeen topp seen yoon te julli dañuy def ay anniversaire day gis ku am doom xale bi demagul fenn ñu defal ko anniversaire ñu dajale xale yu ndaw yi nga xam ne am ñetti at lañ toll ñaari at benn at ñu leen di jàngal lu bon di leen jàngal lu bon foofu la ñu commencé di leen jàngal lu bon di leen solal colu tubaab di leen létti létti tubaab di leen émaay ak di peintre seeni tuñ di leen te xale yu ndaw xale yu góor yi kazaalik ah ci lépp tey jullit buy takk soxna lu muy njëkk a def dem ci benn tëgg ne ko defaral ma jaaro bàgg soo ñëwee nga jàpp ci loxo ndaw si lii mooy wane ne est-ce que loolu islaam la est-ce que loolu islaam la kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu waxoon lépp dëggu na sunu kaw topp nañ yoonu gaa yooyu sunan man kaana qablakum yoonu gaa yi leen fi jiitu woon mu ne hazwal qazzati quzzati bil quzza mooy nii tànk ak tànk mbagg ak mbagg noonu ngeen leen di toppee ñoom fu ñu tegoon seen tànk rek suñu teggee yéen ngeen teg ñooñu lu ñu defoon rek bu ñu paree yéen ngeen def ñooñu lu ñu soloon ngeen sol lu ñu lekk ngeen lekk lu ñu naan ngeen naan ñooñu lu ñu def ngeen def ko daanaka tey soo ñëwee ci monde islamique am na dëkk yoo naan cëpp doo xam foo nekk suñu la ne fii dëkk julli la da nga naan fan fii comme Sénégal Sénégal boo fi ne cëpp lan moo lay wane dëkk bi dëkku islam la di nga xam ne di nga xam ne dëkk bi am nay jullit ndax di nga seen jumaa yi jàkka yi waaye booy xool biir dëkk bi nit ñeeg mbedd mi est-ce que di nga gis jullit yi da nga naan waaw man maa ngi doon dégg Sénégal ñu ne 95 pour cent musulman la lan mooy 95 mooy téeméer boo jël juróom moo ci dul jullit moo dul jullit loolu lañ wax mais boo nee cëpp loolu la moo lay woon loolu looy gis demal ba ci buntu école yi nag nga taxaw demal buntu université nga taxaw nag ngay xaar jullit yi ñuy ñëw nag jullit yooyu nga doon dégg 95 yi waaw ana lu yonent bi waxoon ne dina leen toppandoo kon ñëw na wala ñëwul xoolal tey xoolal jigéen suñ demee ba kër jullit kër jullit jullit yére doomam yëpp amul yére jullit yëpp yére tubaab la nga gis jullit boo xam ne am na waxande wala am na bata wala am na valise mais amul sër yëpp ay jiin la ay dangal yëpp ay buddi la allahu akbar te ngeen di wane al maratu kulluha awra ma ada al wajhi wal kaf dem ba jigéen sax léegi góor ñi sax leen tane ndax góor ñi sol mbax ne ñoo ëpp ak jigéen yu kaalawu ñoo ëpp jigéen ñi mu- muuru bu njëkk ba sax ci fitra bu ñu desoon bu nit deewee jigéen ñi di jaale ji dañuy dañuy muuru ah léegi dañuy dem bopp neen teg fii kol bi nii dañu teg kaala bi def bopp neen bu njëkk ba sax da ngay gis ku jigéen gi moom ragal na yàlla ah i dëj laa jëm de ah nga xam ne muur wallaay daal di muur waaw mais léegi fi lañ koy teg ci mbagg li mu waral ngi waaw boo nee ana kol gi ñu ne mi ngi nii léeg-léeg benn jigéen ñëw suñu école man la ko yow ana sa kol mu ne dafa wadd ci yoon bi pour saboter quoi dafa wadd ci yoon bi ma ne ko mbubb mi waddul sër bi waddul tubéy ji waddul kii bi wadd kaala bi xanaa da nga koo takkul suñ ko takkee di du wadd suñ ko takkee du wadd lépp lañ toppandoo lépp lépp lépp lépp kon yonent bi alayhi salaatu salaam lu mu wax mooy dëgg waaye mbokk yi ndax toppandoo googu ñun dañ cee war a bokk ndax dañ war a seetaan suñu njaboot ñu ci bokk tey bokk na ci sax nit ñi alku mooy danaa ne man de bokkuma ci waaye sa waa kër am na ñu ci bokk est-ce que dina nekk teraanga nekk ndam pour ñun ñu dugg àjjana suñu waa kër dugg safara ban njëriñ la yow nga dugg àjjana sa soxna ak say doom ak say say say say dugg safara amul benn importance yonent bi nee na di ngeen leen topp law xatta la wax gis nga xatta law daxalu xujura dabbin la daxalu ñoom buñ demoon ba dugg ci paxu mbëtt pax pax mbëtt mooy rab boobu nekk ci àll bi te muy gas di ci dugg yenn sa nit ñi di ko jàpp di ko rey di ko lekk ñu jël der bi def ko ay ay saak saak saak wala sént wala loolu mooy mbëtt xam ko suuf la dëkk noonu mu gasee suuf si def ko def ko néeg yeneen bi nee na yéen tamit di ngeen topp noonu ñu njëkk ñu bu ñooñu demoon gas ay pax dugg ci sax yéen tamit ngeen gas pax bàyyi seen néeg yi gas ay pax dugg fekki leen ndax toppandoo te xam ngeen ne yonent bi nee na laa takun imma jullit du nekk al toppe al toppe ak roy du baax de du benn al toppe mooy képp koo xam ne loo gis def ko su baaxee nga def su bonee nga def loolu mooy al toppe léeg-léeg nga dégg nit ñi lépp naan boo demee ci dëkk boo demee ci dëkk nga nekk ñu def yaramu neen defal ni ñoom boo demee ci dëkk loo fekk ñuy def def loolu defal loolu loolu du islam loolu du diine loolu du nite yonente bi na ne bul nekk al toppe àndal ak nit ñi bu ñu defee lu baax nga def lu baax bu ñu defee lu bon nga taxaw waaye àndal ak nit ñi lu ñu def nga def ko loolu du diine am na proverbe bu arab di wax bu arab yi di wax wardihim ma anta fi daarihim wa ardihim ma anta fi ardihim wa daarihim ma anta fi daarihim boo ko bëggee firi ci olof nag du dem wa ardihim ma anta fi ardihim wa daarihim ma anta fi daarihim lu mooy lan mooy fexeel ba ñu kontaan ci yow rek comme yaa ngi seen seen suuf comme seen dëkk nga nekk fexeel ñu kontaan ci yow rek na nga liggéey na nga négocier ak ñoom nag comme yaa ngi seen kër na nga kontaan ci ñoom comme yow yaa ngi seen kër loolu du diine man naa am ak naa naa def naa nef ak yéen rek ma d'accord ak yéen pour maa ngi seen dëkk ma d'accord ak yéen lu bon li ngeen def li ma def ko naa naan ci sangara si noonu nga gis ki tukki jóge fii dem Europe ñu ne ah léegi Europe nga nekk ah nekkatoo Afrique ah waaw léegi ngay naan sangara di def lu bon di njaaloo di dem ci dansini yi di di di di di pourquoi léegi yow yaa ngi yaa ngi Europe yaa ngi seen suuf waaw bu fekkee ci seen kër gi nga nekk ñu ne la sunu kër nga nekk de comme yaa ngi ci kër gi nag li waa kër gi di def loolu ngay def loolu du islam gis naa benn waay boo xam ne dafa dem ci benn kër kër gi duñ julli fajar kër gi 9 heures la ñuy yeewu moom dafa tàmm julli dafa tàmm dem jàkk benn bis ñu laajte waa kan mooy ubbi kër gi fajar mu ne man ñu ne yow foo jëm mooy damay julli ji ñu ne ko non ñii ñëpp ay julli lañ gënoo ñoo gëm yàlla waaw da ngay bàyyi ba ñun ñëpp ñu yeewoo non nga julli parce que boo fi ubbee kër gi ñu sàcc suñu bagage yi da ñuy fay mu ne ma ne du ma fay kenn xam naa daal maa ngi ci kër gi su julli jotee dinaa ubbi buntu bi dem julli ci dinaa ko tëjaat nag xam nga gars yi nu ñu def bàyyi ba mu tëdd ñu tëj buntu bi ñetti caabi daal di rocc caabi ci waa ñu yeewu jàpp sangu jàpp song bunt bi xëcc xëcc bunt bi na këcc te xamul ku muy laaj caabi ji mu yéeg miir bi daal di tëb daanu tànk bi dam tànk bi dam ñëw bu ko hôpital hôpitalisé affaire bi tanewul affaire bi tanewul ba mu génn àdduna ci loolu la génne àdduna xam naa nag ñu bëri ndeysaan ñi ngi yaakaar ne li may wax ni ci dëkk yéeféer yi la alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin kii nee na xam na ko alhamdu ñu bëri xam naa bi may wax dañu yaakaar ne Europe la Sénégal gii la Sénégal gii laa wax de kii alhamdulilah ba mu ne xam naa ko alhamdulilah alhamdulilahi rabil alamin kon du ay lépp kii neen xam na ko alhamdulilah loolu nag yàlla dañuy defal xéewal saa yu ñu waxee fii dara rek am ku ne fekke woon naa ko wala gis naa ko alhamdulilah kon ngeen xam ne réew mi fu nu toll xoolal ay jullit tere dem seen mbokku jàkka ba mu faatu ba mu am accident ba ci accident boobu la faatoo pourquoi doo fi julli ji ñoo ngi ñooyem gënoo ñoo gëm yàlla kon yonent bi li mu waxoon ñëw na mooy di ngeen leen toppandoo jéem a mel ni ñoom ba raw leen tey sax julli di raw nañ tubaab yi raw nañ yahuud yi raw nañ nasaraan yi ci lépp nag bu ñu la demul yow tub tubaab nga tey lekk tubaab naanu tubaab sol tubaab lépp tubaab lépp am na ñoo xam ne sax ñun ci jabaru tubaab am na ñoo xam ne ay jëkkëri tubaab ñun lépp tubaab su ma nee tubaab nag ki gëmul yàlla laa ci nam ndax am na tubaab yu jullit loolu laa ci nam mooy ñi dul ay jullit nekk ay yahud ak ay nasaraan loolu laa ci nam waaw wala ñu nekk sax ay nit yu ñuul mais ay yahud lañ ak ay nasaraan yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam gis nga yonent bi bi muy wax hadis bi saxaaba yi dañoo jaaxle ñu toog ñoom la yonent bi di wax yonent bi dafa taxaw fii rek saxaaba yi jël qaalu ya rasulallah al yahud wa nasara ñu ne yonent mu ne ah ñu ne ko ñun jullit yi ñan la ñuy toppandoo yahud yi ak nasaraan yi ndax waaru bu ñu waar allahu akbar mun ñu ko woon nangu ndax ñoom xamoon nañ lan mooy yahud ñu ngi jàng alxuraan xam nañ lan mooy yahud ñu ngi jàng nasaraan bis bu nekk ñu ngi jàng yàlla yàlla mu ngi leen di wax ñii ñooy ñan bon gu ñu bon ak bañ gu ñu bañ jullit démb barki démb benn waay mu ne yoo xam ne Europe la nekk États-Unis d'Amérique mu may wax dafa am problème ak jabaram ba léegi li mu def mooy bàyyi kër gi ak jabar yeeg doom yi moom mu génn dem luwe ci ma ne ko waaw man dama jaaxle ci loi yi dul loi l'islam loi yi dul l'islam jigéen mooy pee mu ne ma est-ce que xam nga lu ko waral ma ne ko dé mu ne ñoom dañuy fekk l'islam lu mu wax ñu kon indi contraire bi bu baaxee bu bonee seen yun nikku ci moom daal comme l'islam moo wax lii nanu fexe ba loolu l'islam wax ñu dindi ko teg fi leneen maanaam l'islam ne ne ar rijaalu qawwaamuuna góor mooy kilifa jigéen ñoom ñu ne jigéen mooy kilifa góor sama benn rakk dafa demoon Italie bi ma koy laaj waaw seen dëkk yooyu moom nu mu demee mu ne ma ñeenti ñi nii la loi yi demee loi yi nii la jigéen mooy pee tubaab bi ci topp ku góor ki mooy deux xaj bi mooy trois africain mooy quatrième da ngeen wax bi de maa ku jigéen mooy pee Europe jigéen bi mooy pee ku góor ki doog a ñëw xaj bi doog a ñëw nit ku ñuul ki doog a ñëw africain yi doog a ñëw waaw xaj bi moo ëpp droit africain bi waaw ba pare bu ñu ñëwee ne droit de l'homme ah ñu pile wa ñu jàpp ko di sàcc yaay ji génne ko ci yaay ji waaw baax na ñoom ñoo fa dem toogal fii sa dëkk daal doo ko fekk yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na di ngeen nuroog ñoom ndeysaan saxaaba yi daal di yéemu nee na fa waqaa kama axbara sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi li yonent bi waxoon ñëpp teg ci bët wa bi haza mu ne ci lii tazaharu munasabatul aaya li tarjama nee na lii moo leen di woon la yonent bi waxoon ne xeet wi danañ dem ba yi jaamu ay xaram bal alquran moo ne wa ma yumin aksaruhum billah illa wa hum mushrikun li ëpp ci xeet wi du nu gëm yàlla lu dul ginnaaw yàlla am na lu ci nekk dana yàlla kese kese mukk fokk yàlla ak waaw foog yàlla ak mu ne am na beneen riwaaya boo xam ne yonent bi dafa wax ne xatta law kaana fihim man yati ummuhu alaaniya la kaana fi ummati man yafalu zalik hadis boobu hadisu abdullahi ibnu amr la radiallahu anhu yonent bi nee na di ngeen toppandoo gaa yi di leen toppandoo di leen toppandoo di leen toppandoo même bu fekkee am na ci koo xam ne futti na yaayam ba mu set sëy ak moom yéen di ngeen def loolu allahu akbar sëy ak sa way jur sëy ak sa way jur yonent bi nee na di ngeen di ngeen toppandoo loolu ba dem def ko kon toppandoo gi sori na hatta law kaana fihi mu ne même bu fekkee ci ñoom man yaati ummuhu kuy dikke ndeyam alaaniyatan ci dum fi ummati ci sama xeet mu ne man yafalu zalika dinañ leen toppandoo ba def lool ndax bon gu ñu bon ak toppandoo bi ñu dem di toppandoo yahudi ak nasaraan yi mbokk yi mu ne araada sallallahu alayhi wa sallam yonent bi namm na anna ummatahu la tada shay'an mimma kaana yafaluhu alyahud wannasara illa faalathu kulla yonent baa ngi leeralal ne yahud yeeg nasaraan yi xeetam duñu bàyyi dara ci lu bon buñ doon roy sax lu baax li xam nga lan mooy lan mooy problème mu jullit yi mooy ñoom bu ñuy roy ci nit ñi au lieu sax ñu jël lu baax ñoom dañuy fekk lu lu bon li ñu jël ko lu jël lu baax li déedéet ñoom dañuy ndeysaan jël lu bon li duñ sax jël lu baax ruus nañ ko parce que dañoo ay complexe lañ doon naa dugg benn kër di fa jàngale bu ma ñëwee fekk leen ñu toog ne asalaamaaleykum léegi paa bi mu ne bonjour man ma ne ko asalaamaaleykum moom mu ne ma bonjour man tam su ma ñëwee rek jàpp ko asalaamaaleykum ma ne bonjour mu demee ba caag ma ko ne asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam mu xoolal li ko saxoon mu commencé ko bu yàgg ah léegi dafa bëggoon man bu ma nee bonjour benn yoon ñaar rek su ma ñëwee suba ma ne ko bonjour abadan waaye jullit warul am faiblesse am na jullit yoo xam nan la ñuy naane sàngara dugg ci benn kër rek wala benn taabal buñ toog ñu teg sàngara ñu tegal ku nekk kopp mu ñu sol li ñu naan rek nga rus nan la ñeen ñi di toxee cigarette gis ñeen ñi di tox rek ñu ne la nii wala nga tàmbale fa nag téppéeral di dem ñàkk fayda boobu mooy lan ñenn ñi dañuy dugg ci place kenn du julli rek ñoom tam ñu toog boo nee waaw julli jot na ñu ne ah yii xaaral xaaral ma gën si kenn julli ko nañ toog déedéet ñenn ñi noonu la ñuy def ba bàyyi julli dem fu ñu dul julli dootuñu julli dem fu ñuy naan dañuy naan dem fu ñuy defee lu bon ñuy def lu bon loolu noonu yonent bi wax na jullit du mel noonu jullit du ñàkk fayda jullit day am personnalité lu mu mbiri lu ñu ñàng ñàng ñàng ñàng ak foo mënta dem xamal na yow ab jullit nga lenn warul laa yóbbaale yonent bi nag ndeysaan dana xeet wi sallallahu alayhi wa sallam danañ topp yahud yeeg nasaraan yi duñu bàyyi dara dara dara dara dara la tatruk minhu shay duñu bàyyi tus lépp la ñuy jël walihada qala sufyan ibnu uyayna sëriñ bi tudd sufyan nee na man fasada min ulamaina fa fihi shibhun min alyahud wala dëgg ne mu ne bépp boroom xam-xam jullit bu ngeen gis mu yàqu xam ngeen ne dafa roy yahudi moo tax mu yàqu mu ne wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun min nasara jaamu yàlla boo gis mu yàqu nasaraan yi lañ ci roy sëriñ boo gis mu yàqu dafa roy yahudi te ñaari ñi rek la ñuy roy ñee dañ leen roy ci wàllu xam-xam ñii ñu roy leen ci wàllu jaamu yàlla te mun naa leen jox ay misaal de ci yooyu ak a bëri lu ñuy def te ci yahud yi lañ ko jëlee te ñan ñoo koy def sunu borom xam-xam yi ah naa leen jox benn misaal yéen du lan la wax ci sikkim yonent bi ne yahudi dañuy bàyyi seen sikkim yi mu gudd yëpp dañuy bàyyi naanu yi mu gudd ñaar yëpp daanaka ñooy tolloo yëpp ay gudd mu ne nasaraan yi dañuy war sikkim bi bàyyi moustache mu ne yéen wàññi leen bi bàyyi leen bi suñ sëriñ yi ni ñu ne lu dul ñu néew ci ñoom te ñu njëkk ña sax ñoo tane léegi ñi léegi nii genn wàll gépp dañuy wat xanaa ñu njëkk ña ñooñu ngay xool sax seen photo yi nga gis ne ñu ngi ñu ngi sikkim yi ulama ina loolu la waa ji waxoon nga ñëw ci anniversaire yi ñeen ñoo koy def loolu wàllu lan la al jaamu yàlla la nga ñëw ci mariage yi nga ñëw ci da ngay fekk lépp ci wàllu nasaraan yi lañ ko jëlee genn wàll gépp ci wàllu nasaraan yi lañ ko jëlee moo tax Sufyaan ibnu Uyayna Uyayna mu ne borom xam-xam bu ngeen gis mu yàqu mu ne dafa nuroog yahud jaamukatu yàlla bu ngeen gis mu yàqu dafa roy nasaraan yi bàmmeel yi bàmmeel yi ñuy tabax fu ñu ko jëlee ci nasaraan yi bàmmeel yi ñuy def fleur daf ci photo nit ki fu ñu ko jëlee ah ci nasaraan yi exposé bi ñuy exposé ku dee nit ñi ñëw di fóon di ko di ko yurundu fu ñu ko jëlee ah ci nasaraan lañ ko jëlee yooyu gën a ndaw 40 jours quatrième jour yi ñuy def sarax yi ñuy def ci dëj yi fu ñu ko jëlee ci nasaraan yi moo tax mu ne jaamu yàlla bu ngeen gis mu yàqu rek ci nasaraan yi lañ ko jëlee waaye borom xam-xam bu ngeen gis mu yàqu yahud lay topp mbokk yi mu ne fama aksarul fariqayni mu ne aka bëri tey ñaari kuréel yi aka ñoo bëri lakin min rahmatillahi taala wa naamihi an jaala hadihi al umma la tajmau ala dolal waaye yàlla subhanahu wa taala moo bëgg xeet wi xeetu muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla moo leen bëgg yàlla leen sàmm yàlla moo leen di aar ba duñu daje xeet wi yépp du ànd daje ci réer lu nu alku alku alku alku alku dana am ñu des kama fi hadisu sawban al atiya qariban comme ni mu nekkee ci hadisu sawban buy ñëw qaalu ya rasul allah alyahud wa nasara qaala faman wa yarfau lyahud ndeysaan bi raf il yahud yenent bi amul lenn lu mu def lu dul wax jullit yi ñan la ñuy roy mu wax jullit yi ñan la ñuy roy waxul kenn de ñan la indi ay yahud ak nasaraan te lan lañ la waxoon ci yahud ak nasaraan xaalifuhum na ngeen wuuteeg ñoom yeneen bi dafa wuuteeg yahud yi ak nasaraan yi ci yu bari ban moo ban moo ci njëkk nodd ñaareel bi woor samedi ak dimanche ñetteel ah xibla ñeent ñeent sikkim ak mustaas juróom su jigéen gisee baax su jigéen gisee baax yii yëpp yonent bi def ci wuuteeg yahud yeeg nasaraan yéen dafa wuuteeg ñoom mu nekk dane fekk naa leen ñuy def lii man lii laay def fekk naa leen ñuy def lii lii laay def ba mu mat juróom xam nga xam nga yahud yeeg nasaraan lan lañu wax waaw waa ji lu ko jot moom saa yu ñu fekkee ñu def lii mu def lee yonent bi ne yàlla daf maa yónni pour ma wuuteeg ñoom kon naka la yàlla di yónnee yonent bi pour mu wuuteeg yahudi ak nasaraan yi ñun ñu leen di toppandoo ba ñun lépp loo xam ne ñoom defoon nañ ko ñun ñu def ko kon lii mooy sunu problème yal na yàlla wan ñu dëgg mu wërsëgal ñu topp yal na yàlla wan ñu neen mu wërsëgal ñu sori ko mu ne yonent alayhi salaatu wasalaam duut na baaraam yahudi ak nasaraan yi pour ñun ñu mën a xam pour ñu mën a moytandiku parce que du ñu sunuy royukaay du ñu sunuy nawle ba ñoom lu nu def ñun ñu def ko abadan ñun yonent alayhi salaatu salaam dafa am lum nu indil dafa am lum nu bàyyee dafa am aw yoon wu nu rëddal kon war nañu jàpp lim nu bàyyeel fim ñu joxoñ ñu jaar fa lim nu indil ñu jàpp ci waaye bu ñu bàyyee li yonent bi indi woon fim ñu ne woon jaar leen ñu war faa jaar ñu sori ko mooy la muy tekki mooy wàcc nañ sunu ànd bu nu waroon a topp te li ci gën a doy waar mooy toppandoo yahudi ak nasaraan yi du tax ñun ñu nekk nekk loo sol mbubbum tubaab loo lekk lekk tubaab dëkk ci këru tubaab jàng làkk tubaab di def yëfu tubaab du tax nga nekk tubaab te du tax tubaab nawle la du tax tubaab def la nawle mukk ci àdduna ni nga nekkoon rek ngay nekk soo ko defee ab yahud nag mu gën a bon gën a yées kon ki am xel mooy ki nekk jullit gëm yàlla def yonent bi royukaay waaye toog jàpp ca la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyee woon kookoy ki am fulla kookoy ki am personnalité dal nañ yàlla boole ci ñooñu gis nga ci mujjantalu hadis bi sahaaba yi dañu ne ko yonent ndax ñun ñooy topp yahud ak nasaraan qaala faman mu ne waaw bu ngeen toppul ñooñu ñan ngeen di topp nee na istifham bi istifhamu inkaar la ay faman hum gayru ulaayika ñeen di ne waaw bu ngeen toppandoowul ñooñu ñan ngeen di toppandoo loolu lu muy tekki mooy ñooñu rek ñoo fi nekk yahud yi rek ñoo fi nekk wala nasaraan yi ak jullit yi ñetti groupe yi ñoo nekk ci àdduna bi yahud nasaraan jullit soo nekkul jullit rek yaa ngi ci ñaar yee kon jéemal a nekk jullit jéemal a yar sa njaboot ci jullit xamal leen lan mooy lislaam ba du ñu dem di xaaraane da ngay fexe sa njaboot ñu gëm diine ba ëllëg ak si biir fu nu mënta dem du ñu soppeeku yàgg naa leen nettali histoire xale bi ndeysaan sunu jardin d'enfant bi xale bi Ibrahima Ngom boobu mu ngi am ñetti at ñeenti at bu ñuy bu ñuy jël feet nga Sénégal dañuy feetu 31 décembre ak 24 décembre ci weer wi di ñëw suñu kanam wala xale bi ñun la 20 décembre bu ñëwee ci la ñu commencé jàngal xale yi ne leen feet bi du suñu feet bu ko kenn feetu di ko jàngal xale yi di ko jàngal xale yi ba jour 24. xam nga jour vingt quatre Sénégal ca férié la ñuy mayee ca ca suba sa mooy vingt cinq duñ jàng ñun dañ koy jàng ñu ne xale yi bu ngeen xëyee suba da ngeen ñëw waxuma waa élémentaire de waa jardin laa wax jardin ñi am ñetti at ñeenti at juróomi at ñooñu laa wax am na ci benn xale boo xam ne dañ leen jàngal loolu bu dugal ko seen bopp xale bi mu xëyee la vingt cinq ñu sang ko ba pare solo ko yëreem daal di koy tegal saakam jox ko guttam mu mu mu teg ko ci baatam xale bi génn ndeysaan magam yi di ko ñaawal naan ko Ibrahima ñun dey tey jàngiwuñu ñun de dañuy feetu di ko ñaawal naan ko yow de yaa ngi jàngi feetuwoo mu génn kër gi génn buntu kër gi fekk papa yaa ngi ci balcon bi xale yi daal di daw yéeg ci balcon bi fekk fa seen papa léegi ñoom ñëpp ñu sëpp xale bi moom kenn muy jàngi ñu koy ñu koy ñu koy ñaawal mu tourné rek daal di jàkkaarloo mu ne leen ñun jullit lañu. papa ji nee na tuuti ma jóge ci kaw balcon bi rek wadd ji dafa mel ne xale bi daf ma dóor benn kurpañ papa ji bi mu ñëwee di ma nettali loolu bët yi dafa taa muy jooy nee na xale bi dafa ne ñun jullit lañu allahu akbar wallahi lu leer ñun jullit lañu ñun jullit lañu waaw ñun jullit lañu jullit ñun jullit lañu wallahi wax bu dëgg la ko wax papa ji nee na keroog sama journée bi xaw ma fu ma nekk nee na dama xam ne rek sama doom ji wax na dëgg wallahi wax na dëgg ñun jullit lañu wala ah kon lu ñuy dee loolu lu ñuy dee ay 31 décembre ay 20 xoolal léegi nga gis ñu commencé de démb laa dégg benn waaye ci rajo bi naan daaw gouvernement bi bi muy taaral dëkk bi ci 24 décembre dafa dem ba grande mosquée jumaa ji mu boole ko ci def fa ay lamp zigzag ak ay karaj karaj mu ne ren ñu ngi leen di laaj ne leen foofu bu ñu ko jegee ndax foofu jàkka la non xam nga da yooyu da nga defe ne gouvernement dañoo juum da nga defe ne yooyu gouvernement da da ngeen am na yu bëri yu ngeen gis ci dëkk bi da ngeen yaakaar ne ña koy def dañoo juum wala wala non wallahi mbokk yi nan toog rek dañuy ñëw ne gis nga defal defal la ñi gëmuñu tus essayel essayel nga xool dañ essayel dangay ñëw ba buntu jàkk wala buntu nangam lenn lu sell wala alxuraan bi ngay dégg mooy ngi ñuy dessiné yonent beeg di ko wax yu bon ak dañ naan non wax leen wax leen ñu essayé ñu xool ndax gars yi seen gëm nañu wala gëmuñu xoola peine de mort bi ngeen di dégg yéen dégg ñu ne benn waaye dafa dugal peine de mort benn député tey lan laa dégg journal ay nit di défendre naan loo gis nga ñooñu ay naafiq rek lañ dégg ñu ne ñooñu dugal loolu ay naafiq lañ
daa daa bëgg ñu dindi.
waaw dañoo bëgg ñu dindi ko ñu ne ñooñu gëmuñ dara dañuy wax nii rek di jéem a yal na am yal na am.
waaw yéen Sénégal gii ñaata yoon ngeen gis ku rey nit ah démb dafa am benn benn benn waay buñ jàpp ñu ne dafa violé ay xale jigéen ñu ne daara alxuraan la yoroon allahu akbar ñu fexe ba jàpp tëj ko 10 ans 10 ans fii ku rey nit ñaata lañ lay de ku rey nit laa wax de Sénégal ndax mos ngeen gis ku rey nit fii ñu tëj ko 10 ans kii nee na boo amee avocat bu baax kenn du la tëj loolu moo leen di wane gis ngeen loi lépp lu jëm ci lislaam lépp lu jëm ci diine bu yeboo kii nekk ci diine mu def attention gis nga bis boo refee ba dugg ci police bi wala tribunal ci kaso bi ngay dee doo génn mukk waaye gis nga seen caaxaan yi àddina yii ah dara ay trois mois sursis lañ lay tëj un mois wala ñu ne amende nañ ko xoola fii ñi sàcc alalu réew mi ñenn ñi ay caution lañ joxe te duñ ci kaso bi ñi sàcc milliards yi ñenn ñi ay caution lañ joxe sàcc deux milliards ñu jàppale nga ni léegi mën naa joxe benn milliard bi ma dem toog sama kër kon kay ku yemoo sàcc mu neex sàcc buñ la jàppee rek nga xaaj ko ci digg bi nga dem toog sa kër ngay noos ci leneen li parce que kenn du la woowaat kon jullit yi nanu yeewu ci leneen yonent bi di wax nañ jéem a góorgóorlu nañ jéem a xam sunu diine li ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngal ñu xam ko mbokk yi loolu moo doon sunu dars tey ñu jéggalu njuum tey asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu